mais ñu mel ni ñu d'accord ci ci ci ci arrêt de travaux et tout ça on pas fou on a le mec le machiavélisme comme comme eux hein mm -hmm. <laughs> de la guerre comme eux lu ñu teg xam nañu quand même équation à plusieurs inconnues ou bien à deux inconnues kooku quatrième lycée lañ koy jàng donc nañu dal fii ku fa rendre compte di nga compte léegi nag ànd bi moom mu neex nit mu naqari nit ànd buy neex la te dinañ dem ba jeex Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko yàlla sax ci alxuraan du ne man maa def wala man maa créé day naan ñun ñoo créé. ñun mm-hmm. ñoo def yàlla ci boppam buggul personnalisé wu. yoon ñu ngeen am chance am deux hommes qui font un seul homme deux cœurs qui font un seul cœur deux âmes qui font un seul âme deux physiques qui font un seul physique deux souffles qui font un seul souffle mais doo leen sant yàlla. Mmh. donc on n'a qu'à gagner doublement voilà quelqu'un de bien fu mu war a xoolee. Mm-hmm. xam nga suma la nee tu seras malade da nga foog dem la ne yow di nga feebar waxuma la loolu de. Mm-hmm. quatre mots laa fi génne tu seras malade réel ma jinax bii nga xam ne dafa feebar. mais yow li li nga dégg mooy lu négatif li dama ne da nga feebar j'ai pas dit que tu seras malade dama ne tu seras malade. d'accord. xam nga ñoom voilà justement nag gis nga un savant aveugle bind ko boo defee liaison bi nga ne un savant aveugle day changer notre euh, euh, signification ñoom c'est des savants aveugles. ñan ñi comme ñi critiquer. ñi xaar ñu échoué. waaw c'est les savants aveugles. et nous on a besoin de savants aveugles. Mm-hmm. wala déggoo bu baax. d'accord euh, dinañ waxtaane aussi ci jamono ji ñu toll ni luubal. gi nga xamante ni peut-être jàpp nañ ni euh, nguur gi fi nekk euh, naam tegaguñu kenn ne euh, baaraamu tuuma mais jot nañ ni lu bal am na ci lu jëm ci alalu askan wi ay suuf ak yeneen yu ni mel donc jamono juñ toll ni rapport yi am na yi nga xamante ni jébbal nañ leen procureur am na yi nga xamante ni enquête bi mi ngi daal di wéy ba tey ban jàngat ngay def ci régime bi nga xamante ni moo fi jógee ci caxat caxatee peut-être bi nga xamante ni jot nañ. peut-être ci caxat caxatee bi nga xamante ni euh, nemmeeku nañu ko euh, ci moment boo xamante ni sénégalais yi. déjà sax ci ci seen sorti rek. Mm-hmm. gis nga avion présidentiel la ñuy jël yóbbu des moins que rien ñëpp ñu yóbbu leen makk hmm, ñan lañu yóbbu Makka. alors lu rëy mélodie. ñan ñoo dem Makka a le fils de Macky Sall donc Macky Sall ay ay xaritam moom mu jël ay xaritam loolu koy yàgg na sax moom koy chaque trois mois Marième Faye Sall moom chaque mois moo ngi màkk. Mm-hmm. ak ay xaritam. l'argent di contribuable ngeen foog ne màkk boobu yàlla dina ko nangu. bi màkk yi état di joxe sax benn màkk du ci yàlla yàlla du ko ci nangu. màkk mm-hmm. da ngay def nii nga dem aji. mais anam bi doy waar bi ñu caxatee euh, caxat caxatee alalu réew mi ban jàngat nga def. il vont payer le ils régler le compte yow ci imagines Diarra. Mm-hmm. un un pauvre garçon comme moi une pauvre fille comme toi ñuy deewoo amuñu lu dul trois cent mille par mois. Mm-hmm. ci trois cent mille yi presque cinquante mille ci impôt la jëm. Mm-hmm. ak fi nga toog nii li nga sol fay na TVA. bu waroon jar cinq mille francs. six mille lañ koy jaay parce que douanier bi dafa lakk dafa lakk mille francs waa ji di importe mhm. donc yooyu yaay remboursé mille francs boobu sa cheveux bi nga takk warul jar lu dul vingt cinq mille francs boo ko jëndee quarante cinq mille xamal ne vingt mille c'est parce que dañ ko fay impôt donc yooyu yaa ko remboursé mhm. sa boucle yi dafa fay impôt sa oto bi dafa fay douane donc yaa ko fay oto bi ngay jëndee dix millions dafa fay trois millions douane trois millions yooyu yaa ko remboursé moo dem ci état bi moom lañ leen on paye ces gens-là par notre sueur ba pare ñu ñoo leen di fal fay leen suñu ñàq ndox boo ko naanee fay nga TVA booy laabu sax ma ne ndox bi dafa fay ta TVA minéral bi ngay naan boo jëndee bouteille bi deux cent cinquante cinquante franc bi état moo ko moom bâton de cigarette bi ngay tux di ko jëndee cinquante franc quinze franc bi état moo ko moom mhm. un litre essence bi ngay jëndee neuf cent quatre vingt quinze xamal ne deux cent cinquante cinq yëpp état moo ko moom nga jënd ci commune de litres te oto bi day taal clim xoolal sàcc bi ñu sàcc nit ñi fin du mois nga jënd dix mille courant ñu jox la cent cent deux kilowatt nga jëndaat dix mille jox la quatre vingt nga jëndaat dix mille jox la soixante quatre loolu sàcc la di. Mhm. xanaa courant du courant rek lu ci indi ay première tranche ay deuxième tranche tout pour arnaquer les gens. Mhm. du gis nga arnaque la woon ba léegi dinañ troisième tranche bu mu des deuxième ak première tranche sàcc la sàcc la avant facture dina ñëw par deux mois après ñu koy indi par un mois parce xam nañ ne chaque facture day fay timbre deux cent francs deux cent francs multiplié par combien de foyers léegi ñu bëgg xaalis boobu gën a bëri def par mois après ñuy defaat encore par deux mois bi élection wadd boobu jàlle parce que dafa soxloon xaalis pour campagne électorale tout ça ci suñu ndodd ñu nax ñu ñu fal leen ñu jël suñu alal suñu ñàkk ñun baa doole yi ñu leen koy fayee y cent soixante-quatorze mille fonctionnaires cent soixante-quatorze mille fonctionnaires yow yaa ngi fay yow man le pauvre qui est là-bas qui n'attend vingt-cinq pour percevoir ba pare ñu caxat caxatee ko ngeen naan doo leen rendre compte au nom de quoi yéen a ñu gën day yéen a ñu gën a bàyyi et puis c'est avec notre argent en plus qu'on qu'on vous a donné des bourses octroyé des bourses ngeen dem ba extérieur jàngi au lieu ngeen ñu servir ñu mais vous vous servez nu nous voilà la vérité. Mm-hmm. te tey bu ñu newoon wolof mooy langue nationale wala arab rek eux tous ils vont devenir des nullards nañu dindi France bi rek. France français ñu dindi ko eux tous ils vont devenir moins que rien la diplômes ne serviront à rien du tout d'ailleurs ils ne rien du tout boo soxlaa expert pour wër pétrole da nga koy wuti amul sénégalais bu koy kii mm-hmm. médecine bi may def nii sax garab gisoo fi kenn ko fi créer benn comprimer te yow boo man su ma jëlee sama garab ma koy fejee hépatite ñu contre ma yow man ma man ma ma toj fii mën a faj hépatite yow mënoo dara xamoo dara lu dul loo tubaab jàngal nga naan ci intellectuel intellectuel du cul <laughs> Euh, am na am na solo ñu waxtaanee ci jamono ji ñu toll nii nag euh, gouvernement bu bu yees bi gis nañu boobaak léegi nomination yi mi ngi daal di wéy ñu fàttali euh, gisoon nañu projet Pastef bi dañoo xam ne woon daal dinañ daal di def appel à candidature mais finalement dañu gis ni voilà ñi ngi wéyal nomination yi jëmale ci seen ay jegeñaale ñenn ñi jàpp ni voilà temps bi du leen permettre ngir ñu am. amal appel à candidature bi ñeneen ñi jàpp ni daal dañoo daal ci wax waxet ban jàngeen ngay def ci loolu. wax waxet moom daa yàgg ci réew mi. maa waxoon waxet. loolu moom suñu papa yi ñoo ñu ko yaree. Mhm. ok. Mhm. léegi nag appel à candidature vous croyez que ñu on va faire appel à candidature <laughs> bu koy def même les gens de la paire ils vont faire partie. Ouais. les gens de, de les gens de l'ancien régime. Mhm. <laughs> loolu kay mooy y a changement. parce que après la candidature bu ñu ko defee l'expérience il compte. boo indee say diplôme kii la diplôme amul benn aspect boo xam ne très utile à à souligner mooy nombre d'années expérience mais ki nekkoon fii ci état bi moo ëpp expérience. cinq ans donc finalement ki va gouverner les mêmes têtes. defuñ ko appel à candidature c'est entre nous-mêmes. d'accord c'est entre nous-mêmes. wala déggoo bu baax entre nous-mêmes appel à candidature c'est entre nous-mêmes pas généralisé xam nga nit nit di dëgg wax vous rêvez hein mmh. vous rêvez franchement quoi tu restes dix ans dans une direction tu ne fous rien du tout tu veux qu'on te qu'on te n'importe quoi pour que tu mm-hmm. continues de voler tu n'as fait aucun résultat que teg la ay papiers yow ku toog ci bureau di climatisé di huit heures jusqu'à seize heures di jël ay jabaru jàmbur di leen kii sax ci bureau yi doxaan di def lu n'importe quoi loo loolu liggéey ñii di liggéey ñu ngi ci naaj bi mm-hmm. di doser nit ñi c'est-à-dire ils ont tous les pouvoirs quoi ay laisser passer c'est-à-dire c'est tellement facile quoi nga bëgg dëkk ci loolu <laughs> eh yàlla vous allez payer le pot cassé oui vous attendez appel à la candidature là attendez longtemps c'est brochet de la candidature là que vous aurez. <laughs> d'accord euh, jamono yi weesu gis nañu euh, sa intervention boo doon def euh, ci benn site ñeel visite bi nga xamante ni Michel defoon na ko mu jur polémique gis nañu sax Jamra génnoon na di di di di di artu. di ña artu kan. Euh, voilà président Diomaye. non président Diomaye. Ah, d'accord euh, di wax kay ni <laughs> voilà waa jamono dañ maa gën a jàng. warul warul dalal borom ñaari tur yow ñu gis la nga daal ci euh, am ay kàddu. loolu wax naa ci li ma ci doon wax ba pare du ci jaaraat. Mhm. ça c'est pas leur problème ça c'est problème d'état lu nekk ak contexte am. d'accord te gënuñu Bassirou Diomaye Faye nekk jullit fii ku fi taxaw Bassirou Diomaye Faye président Bassirou Diomaye Faye taxaw. bu ñu doon choisir kan mooy julli dëgg moo nuur ak julli dëgg président Bassirou Diomaye la ñuy jël. Mhm. nañu noppal julli day am lumière day am lu frappant day ay signes et tous les signes pour nommer un bon musulman mu ngi ci président Bassirou Diomaye Faye. Mhm. il ne regarde pas les gens en face kuy kuy kuy wax di xool li ñu dans les yeux c'est pas encore bon musulman. et il faut être sans défaut pour critiquer autrui. Mmh. Il a reçu le représentant de l'Union européenne. lii la ñu xam si les hommes si les femmes si les PD si les góor jigéen nous on son fout. C'est l'État qui a reçu le représentant des Europe de l'Union européenne bokk. Mm-hmm. te foog ñu liggéey ak ñoom léegi ñu bañ ko recevoir. Comme ça, nous, on ne va pas travailler au nom de quoi Au nom de quoi mm-hmm. On vous a dit est dans une république islamique. On vous l'a On n'est pas dans une république islamique, je suis désolé. Ah, on n'est pas dans une république islamique. C'est pas la islamique du Sénégal. Dit. On est une république laïque. Si. Alors,